شهر رمضان bonsoir amen tonton jërëjërë TV ginnaaw bi ma am mbégte ak contentement bu baax baax daa leen nuyu nuyuwaat leen comme ni ñu ko faral def rek saa su ne bu waxtu bi jotee di àndoon ak yéen si li nga xam ne seen bu mag bi nga xam ne moo di jërëjërë TV la chaîne de la nouvelle génération ne laan ko waxee woon nag si bi nga xam ne si waxoon na euh, euh, leen ko dinaa leen ko euh, defal si li nga xam ne moo di si koor gi comme man nag ay actualité laa leen di indil actualité yi nag mooy tey ki ma invité ñaari daanaan laa invité daanaan ni géejoon nañ leen gis gëjoon nañ leen dégg tey nag ñoom laa toogal fii ndax tey bi ma dugalee sama affiche bi sax ne ñoom laa invité Sénégal gi njaay yëpp dañ ne ma ah tey am nga émission man leen ah ñaanal leen yàlla rek tey euh, ñu def man ak ñoom ay émission bu neex neex maa ngi dana kii xadi moo di Ale sama gos waaye sama droite kii xadi moo di Xaadim euh, damay bàyyi euh, Ale mu daal di nuyoo téléspectateur Jëri Jëri TV laataa ñuy xuus si waxtaan bi Ale maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay Padros di la ziare di la baalu àq ci weeru tedd wi di baalu àq képp koo xam ne yaa ngi déglu aale mbuub ak xaadim di baalu àq kenn koo xam ne tamit suñu mag la yàgg ñëw ëppale muy baakan sekk jërëmi ci mbéy di nuyu fukk penc ak ñaar yi di nuyu kawlax di nuyu waa Gosaas di nuyu waa Tëngéej di nuyu waa Ndakaaru ndax bu ñu mu ñooy mbokkum Sénégal di nuyu képp koo xam ne rek mën nañ laa def mhm. loo xam ne yëguñu ko ñu ngi lay baalu àq di leen baalax di ñaan yàlla nag lépp loo xamante bi nit ñaan na ko ci weeru koor gi yàlla suñu borom nangu ko ci kàttanu yàlla macha allah macha allah aca noonu ngeen ko daal di eh, gisee eh, Alé Mboup moo daal di nuyu bu sell boobu waaye damay dem sama eh, droite daal di nuyu ki xam moo di Xaadim Xaadim Mboup ah nga xamante ne nag daawra cat ñoom tak tey li ñu sañseet ñi après si kanam lañ koy daal di yeggale si kanam tuuti ñu daal di waxtaan seen téléspectateur u Jërëjët TV laataa ñuy xóot si waxtaan wi Xaadim maa ngi lay waaw Padros maa ngi lay béggee bu baax. di la siyaar di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii vraiment ñooy seetaan euh, Jërëjët TV di nuyu téléspectateurs yi ak soppe yi di nuyu sunu dëkk fi nga xam ne foofu lañ cosaano ale wax na ko ñu ngi nuyu baakan di baalu ñëpp àq nag parce que ñu ngi ci koor yi ba yàlla ñu ñuy ñaan yàlla defal ñu ko ay at yu baree baree baree bare ñu koy fekke te di ko tal waaw di nuyu ñëpp di nuyu fans yi tamit parce que yaakaar naa ne ndeysaan géjoon nañ ñu gis te lii vraiment xam nga surprise la boo xam ne nii vraiment ñëpp kontaan nañ ci waaw ñi ngi bëggee ñëpp daal. waaw gis ngeen ko noonu ñoom ñaa gu si nekk nuyu na kii xam moo di téléspectateur jari Jeri TV la chaîne a la nouvelle tey nag euh, comme ni ma leen koy waxee rek tey damay bàyyi euh, kii xam moo di Xaadim euh, mu expliquer ma naka la ñu gisee li nga xam ne moo di programme koor gi tey ak koor gi ni mu mel ak tey bi fi mu toll tey naka ngeen di loolu. waaw ni koy dundee mooy koor gi ñun dañ ciy profité xool li nga xam ne moom lañ dund ci at mi. li ci positif ñu téye li nga xamante ne bi yàlla def na bokk ci ñu raxas teg ne le dinañu may tamit occasion ñu gën a mën a toog pour dallu pour créer waat ay yeneen yu bees yoo xamante ne bi moom la ñuy jox fans yi ndax euh, boo xoolee onze mois yëpp ñu ngi ci ay spectacle di dem ko ñëw kon weer yi ñun artistes dañuy yàkkamti pour mu ñëw pour ñu mën a dallu mën cee defaraat sàppe yi mën ci toogaat liggéeyaat loo xamante ni bii buñ nee buñ génnaatee dinañ xam ne ah gars yi ñu ngi woon dallu mais dallu bi yëpp du dallu ndax euh, da ngeen ñëw yónni yàkkamti ñu mm-hmm. rawatina fans yi ñuy bégee ale xaadim géej nañ leen a gis te ku ci nekk euh, jamono ji liggéey nañ loo xamante ne bii pour joxaat ko melomaan yi ndax ale fu fu mu dem bu ko tojee dina dégg ah ale ana xaadim xaadim fépp fu mu dem lool ñu waxi noppi mm-hmm. kon nag euh, ñu dañuy nangub dogal ànd te yàlla tax am yeneen yu bees yoo xam ne nag ñu ngi ko dencal fans yi ñu ngi koy liggéey ci koor gi ñu ngi leen amee ndéwénal goo xam ne ale xaadim ay surprise lay doon incha allahu rabbi comme ndogu koor gi la ñu wax rek mais gis nga koor gi tey dañ naan artistes yi ñi si liggéeyul ba koor gi yegg si dañuy am problème mooy lu ñu dundal seen i njaboot wala ñu am problème boo xamante ni tey dañuy dem di wër si yenn kër yi di di di di li nga xam ne moo di ndogu mm. tey naka nga gisee yenn terme yooyu nga xam ne moom la ñuy di si nga xam ne moo di artistes yi non non non non ñuy wax loolu xañ na duñu artiste wala gëmuñu yàlla fukki weer ak benn nga di ko liggéey di am xaalis benn weer boobu danga ko war a yàkkamti bu fekkee ne dencoo ci loo mën a dundalee sa njaboot tekkiwaatal sa ngemb tekkiwaat sa kaaka dem seeti leneen onze mois or koor baat lay ñëw at nga koy liggéey toog benn weer rek noppalu mais xanaa yàlla tere jaam bi feebar da koy bett leneen ak leneen da koy bett lu dul weeru koor yenn saa yi nga man ba mënatoo loolu ay waxi caakaan la weeru koor daal weeru artiste laa ko jàppee man ndax weeru dallu la weeru jaamu yàlla weeru dëxëñu xoolaat say affaire liggéey loo xamante ne bii boo ñëwaatee fans yu kontaan man loolu laa ko jàppee ñiy jàpp ne weeru koor moom kuy liggéey at ba benn weer amoo dundee bàyyi aar bi nga seeti leneen. ñu bàyyi aar bi dem xooli leneen loo xam ne war nañ ko war mën a liggéey Khadim <laughs> ah, waaw waaw tamit quand même Khadim <laughs> eh, dañoo gis ni core eh, gi comme dugg nañ ci ni yéen artistes yi à tout moment da ngeen di nekk studio lu bari pourquoi da ngeen di def da ngeen def denc wala da ngeen def pour pour euh, pour koor gi jeexee rek ngeen daal di génne wala lu mu demee noonu. waaw boo gisee loolu mooy maanaam weeru koor doon na weer woo xam ne nii ci artistes yi artistes dañuy gën a mën a am temps quoi ci ngay gën a mën a am jot. pour mën a liggéey parce que spectacle yu bari day arrêté xam nga boo ndogoo ba pare di nga mën a dem studio ñu nga mën a liggéey lu bari waaw comme ni ñu koy defee nii xam nga ba pare weeru ngëneel la weeru xéewal la waaw weeru koor moom moom ñun dañuy ñaan chaque chaque année rek ñu koy gën ñu koy gën a fekk waaw parce que weeru ngëneel la ko waaw weeru màgg la. waaw weeru koor ngi ñoo ngi ñaan mu ànd a xéewal sunu ramadan weeru yàlla la ñu ngi ñaan mu ànd a li ci weeru koor wéeru yàlla la say loxo wóor say tànk wóor sa gémmiñ wóor sa bët yi wóor nga ko yegg si nañ ñi ngi ñaan mu ànd ci ramadan weeru yàlla la Eh, ndeysaan mi ngi noonu gis ngeen ko comme ni ñu ko fentilee weeru ngëleel la waaye weer boo xamante ni si la ñu jaamu suñu borom bi lépp loo xam eh, nekkoon ba ñu gëj leen a gis ak si lan ngeen yeen ngeen nekkoon parce que du concert du yenn affaire yi bu dee xaadim sax eh, ale mën naa ñëw après ci kanam mais xaadim dañ la gëjoon a gis trop fan nga nekkoon waaw nekkoon ci ruq rek di liggéey parce que li naan jàmbaar dawul dafa wuti doole waaw nekkoon ci ruq bi rek parce que artiste même boo ko gëjee gis tamit teewul mi ngi mi ngi mi ngi ruqam di liggéey waaw noonu la demee quoi mais wax dëgg yàlla ñu ngi waaj loo xam ne nii vraiment bu génneek soppe yëpp nañ kontaan waaw nañ xam ni raar bi yëpp xam nga lii lañ doon liggéey te loolu rek moo am solo waaw noonu la demee quoi. gis xarim si boîte yi. non yàggatul incha allah bientôt duñ wax kenn dat nag mais bientôt incha allah ñu kale ay affaire yoo xam ne ni incha allah soppe yi dina leen wax fi ñuy fi ñuy tase ñoom waaw yëngal ba mu neex ñëpp bëgg namm nañ ko leen wayal te ale xaadim nag seen retour bii ay way kese dong bu dee ambiance xam nañ niñ koy defee mais nag dafa jot pour ku jugee ci këram stressé bu ñëwee ngay way mel ni moom ngay waxal loolu daf jóg te dañoo pare nag pour ñëw waaw bu dee ambiance mën nañ ko ndax ñun ay doomi géwél lañ boo ñu tëg boo ñu joxee cóol ñu wàcce ñaari peeg boo ñu dàqee ñu fecc bu way jotee dañuy way léegi daal ñaari jumeaux yi mhm. ñu ngi seen ginnaaw mag baakan sekk jërëmi ci mbéy mhm. ndax macha allah lépp luñ doon jooy yàlla jox nañu ko fii ci suñu label di ñaan yàlla rek fans yi ñaanal ñu ñi nga xam ne ñoo bëgg aaleeg bëgg xaadim ñaanal ñu mhm. parce que ci ñoom la des ah. waaw ci ñoom rek la des ku gis xaadim wax ko luy koy jëmale kanam ak aale ku gis aale wax ko luy jëmale kanam moo xaadim parce que ñu nit suñ xol yi dara nekku ci te ànd rek lañ bëgg mais Sénégal moo jafee ànd waaye nag dem nañ ngemb ji ba dëgër takku ba dëgër pour mu doon xeeru géej bii dëgër naa këng-këng bii nag moom mooy sànni neex benn naxari benn barke Seydina Mohamed biir studio a tourné fan mm-hmm. mm-hmm. loolu dama bëgg après tuuti su ma taxalikoo yéen ba pare rek mm-hmm. daal leen di bàyyi ngeen daal leen may yëkkatil Maolana bi ñu daal di koy tëjee eh, li ah, ñoom ñu ngi waajal benn événement bu mag mag affiche bi dinañ la ko mu ngi noonu ci écran bi nag ngeen ko xool ko bu baax ndax eh, événement bu mag la ale ak xaadim ay sa ñang dem foofu sa Paris ah, loolu lu neex la dama bëgg yéen ñëpp ngi daal di ñëw waajal ko bu baax a baax a baax noonu laa leen di tàggatoo nag ba benn yoon incha allahu rabbi ci li nga moo di ndogu kër gi damay wax kee nga xam moo di Kalsi Ndaw Kalsi Ndaw bu RFM bëgg naa Mamadou Yatassay ñëw bokk ci sponsor yi Aquaterra dama bëgg mu ñëw bokk ci comme ñii may nañ ma ma wax loolu dama bëgg euh, waa euh, Aquaterra Mamadou Yatassay Kalzi Ndaw yaa war a jàpp loolu sa loxo ñëw teg euh, Mora Couture maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di ci woo Waly Faye borom DG Jami Logistique di ci woo suñu grand ki nga xam ne moom it suñ duwaañe bi mook boobu Fasori Kaba di ci woo képp koo xam ne rek yàgg ngaa jàppale aale bu ba xaadim ñu ngi lay woo boo mënee dagg bee sax fekk ñu pari dañuy neex. ñu daal di ambiance ak yéen. ma ne ko gars yi dañuy ñëw gars yi ngi waaj. waaw sa waay moom mi ngi waaj. sori kaba. waaw xam naa ne moom yéen a ngi yéen a ngi waaj yéen ñëpp pare nañ man moom xam naa ne pare naa. ku ma fa dëgg rek ne ma massa ku ma fa dëgg rek ne ma ne ma ne ma massa euh, ki nga xam moo di mbaxar création nekk foofu sa caaro yi géej borom ñëw yi rafet yi nga xam ne nii tarkal la muy jigéen muy góor ñëpp dañuy dem ci daal di dem euh, njëkkante ji ndax nag moom yombul ku mu ñëwal rek nga ni nga ni gongo waaye si soo damul si loxo bi mbaxar création mbajek kooku mooy euh, magi Ndey Sel kooku di magi Asim Mbay kooku di magi ki nga xam ne moo di Aljuma Mbaay ah Day Fall mooy suñu yaay mooy sama maam ba tax na noonu laa borom daal di fëgg seen bopp bañ delluwaat seen njaboot waaye ñi nga xam ne ñoom daal leen fay gi nga xam ma koy waay

yaa ànd ak Mawlana Baay doo